MCS International, études d'information à l'étranger. Vous êtes élève du terminal, bachelier ou étudiant, obtenez votre admission dans les universités françaises, américaines ou canadiennes. Grâce à MCS International, vous bénéficierez d'un accompagnement et d'un suivi pour la réalisation de vos projets d'études supérieures à l'étranger. Contactez-nous vite au 33 868 69 28 ou au 77 826. leen ziare ñoo ngi fi toog ak Luc Nicolaï fas yéene moom rek presse bi yëpp toog fi waaw ñoom Dembélé Babacar bi di blessure Modou Lô donte def na ay éclaircissement tuuti sax ci wàllu fajiri sax mais am na question yoo xamante ne foog ñu posé ko ko dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp su ko defee ñu waxtaanee li nga xamante ne moom mooy xew-xew bi Luc maa ngi bu baax di la sant naa sama sëriñ sëriñ Baara Mbacke Fallilou di am mbégte lool nag aussi jàkkaarloog yéen ndax yéen moom su may jaarbaat ngeen sumay may xarit ngeen e, mbégte rek laa mun a am wax dëgg yàlla toog seq ak yéen waxtaan. comme ni ma ko waxee rek yan leeral nga mën a andi ci blessure Modou Lo bi nga xamante instant bi indi na jiixi jaaxa ci xelu nit ñi ni ko Nicolaï nekkul ma waroon def déclaration bi ak genre yooyu noonu yan leeral nga ci mën a. xam nga combat bi e, Lamine dadul combat bu ndaw. donc euh, mënuñu ko méngale combat bu ñuy toog di def ay réunion sécurité vingt jours avant di ci dajaloo du combat bu ndaw donc genre événement yi bu amee bu ci ne day am traitement wam traitement om mooy lan mooy tey man bi ma yéegee mbir mi bërki démb laa ko yéeg jeudi du tey la samedi bërki démb laa ko yéeg à seize heures trente bi ma ko yéegee biram ne ma foo nekk ma ne ko ah man de maa ngi nii almadi mu ne ma non mbir am na de ma ne ko lu xew mu ne ma Modou Lo dafa blessé d'ailleurs hôpital lañ jóge certificat médical baa ngi nii ma ne ko bon comme noonu la demee bàyyil ma woo président Bira comme moo ñu boole yilif ñun ñëpp comme ça bu ko defee ñu dem seeti ko ci laa woo Bira mu ne ñu maa ngi CNG ma ne ko ok kon ñu ngi ñëw ci la ñu dem fekk ko fa jébbal ko kayit boobu biñ ko ko jébbalee itam euh, mu xamal ñu carrément ne il faut Euh, médecin au CNG saytu wergu yaramu modlo, ba xam ndax lolu euh, lu am la wala du pas lu am la sax mais pour deugal certificat médical bob, certificat médical bob, kiko def aussi c'est un professeur assermenté nek euh, centre traumatologie du chef de service fele à CTO donc ci lañ def noonu bira président bira woowaat ma ne ma ok léegi jox ma numéro médecin au CNG ci laa ko def mais combat yu mel nii dañuy éviter mu am yenn coow yu ndaw yi éviter ko mooy lan mooy tey mënuñu d'accord euh, affaire yi ébruité wu ku nekk am sa version bopp loolu aussi dañ koy moytu moo tax ñu décider leeral nit ñi na man leer na ma leer na kenn gënuma doon voix autoriser pour wax ci combat bi donc tey man leer na ma ne combat bi du am. parce que man gis naa certificat médical bi gis naa kilifa bi ko def prêter serment def ko quarante cinq jours la preuve bi mu demee CNG dañ ko yokk. def ko trois mois. kon xam nga ne loolu. non non trois la trois la deux la ak benn mois boo benn mois deux mois ak benn mois boo xamante ne rééducation la trois mois la. voilà ñu bare xooluñu bu baax kii bi trois mois la. Mhm. donc tey. Euh, moom lay expliquer dama ne ñun amuñu benn intérêt combat bi bañ a am wax dëgg fa yàlla suñu matuwaay yëpp jëloon nañ ko donc daal loolu laa mën a wax ci blessure bi li ñu waroon def nañ ko déclaration nag man damay déclarer parce que kenn gënu ma euh, yeyoo déclarer moo tax ma taxaw ak askan bi wax leen li am man xam naa ne combat bi du am certificat médical bi ma gis man wóor na ma ne combat bi du am kilifa moo ko def du ay fowantu kilifa la ñemewul def lu mel noonu. jamais de la vie lolou motax ma def déclaration mais bima ma déclaration bo déglo itam fin ou déclaration bi waxna len leen ne leen Lo dem suba ci médecin ou CNG mu wax ko lam ko wara wax. donc man lama waron def nago amna am ñu ni loolu yeb ay ñu ñaj moko lal ndax jour bobu non da nga jot plainte bo xamanteni jël nañ ko manam tek ko ci sa loss yow ak sa dom ba ci ñambe mi nga xamanteni CNG la nek ndax lolou non mën nga ci nday waaw mais man plant bi ngay wax ba fii may wax ak yow nii man jotuma plainte man ci presse bi rek laa ko yéeg noonu man sax sama jabar moom ma njëkk a woo ma waxuma waxu plainte sax dafa ma wax benn site xaw ma bu wax du ma tudd turam di ko may sax ay coow waaw mais kooku wax loolu ak la mu wax ci loo foofu noonu yëpp xam nga ne ay kàcc la ka ko ko wax loo day kàcc moom ci boppam day kàcc waaw te firnde nañu ne day kàcc parce que Euh, tey mënuloo wëlbatiku ne benn structure existé wul mbaa dugg na fi génn na fi kayit yi jox naa leen ko. muy Nicolas business. waaw ni ngeen ko divulgué. waaw mooy soo ko amee PDF mën nañu ko teg bu ñu mën. non mu ngi ni jox naa ko ñëpp. mun naa la ko yónnee PDF itam. naa la ko yónnee mu gën a leer. moo la pour wane ne rek ay du ñu katu dëgg. te man dootuma nangu kenn ku may wax loo xam ne du dëgg di ko te man bu doon man ak man sax mais sama famille bañ ca boole moo ma metti man moo tax ma génn sax wax nii hmm. mu amaat encore affaire li ngay wax naan dañu complot waaw mais lamin xam nga Lamine yabaate mun a paase un médecin assermenté professeur certificat médical baa ngi nii mu ngi nii boo xamante ne professeur moo ko def. mu ngi nii wala ci écran bi mu ngi noonu di daw. kilifa bu mag prêter serment. nga ne li mu wax dafa complot ak ak ñun parce que loolu mooy dañu complot ak moom mooy la mu wax amul ñu jege fa nga ne médecin CNG itam lu mu wax amul day complot yaa ngi imaginer yebaate boobu ah waa camp wu Modou Lo Modou nga am looy wax naan dañu complot mais waa camp Modou ñu ngi may seetaan moom du mucc lundi di ngeen dégg mook ñoom waa kër Modou Lo ñoom seede yàlla ñu ngi balu àq boobu ba léegi di woote di woote pour jéggalu mais duñ leen jéggal deug na nit ñi di wax nak parce que man itam aussi nitu nit ñi la donc mënuma bañ a vraiment am yenn comportement mais li dafa ñaaw nit boy wax da ngay wax deug da ngay wax deug ndax ñom mustapha gey lañ fi ñëk porter plainte deug lool du deug porter nañ fi plainte mustapha gey nu ñu wëlbatiku dem di balu ak? yëkëti xaaliss di ko may mustapha gor la jëlu ko pour balu ko ak? yow légui d'accord nee nga société bi amul wane nañ la ni ne ya ba kon falsifier la reçu de commerce bi dañ ko falsifié tribunal bi joxe récépissé daf ko falsifié nga ne léegi certificat médical dañ ko falsifié bu CTO nga ne certificat CNG dañ ko bu docteur CNG dañ ko falsifié nga wëlbatikuwaat ne contrat bi njàmme daf ko falsifié ah mais kooku kooku mais nañu waxante dëgg yow kañ nga ñëw làmb bugg a ñëw yàq suñu làmb kan nga mus a dégg mu ne dafa porter plainte CNG kan. combat bi nga ne Modou Lo trois mois la am trois mois boobu ça veut dire que combat bi dinañ ko reporter ba saison bi di ñëw. xam nga man dafa am lu ma jàngat. mooy mood Lo moom bu demee ba entraîné ba yaa ñu ngi koy ñaanal wér bi mu gaaw su gaawee xam nga il faut mu entraîné waat tuuti pour mën a ñëwaat bu dee euh, CNG aussi may nañu lu ñuy wax dérogation parce que cas de force majeure day am donc ñoom mun nañ ñu may dérogation peut-être ñu réfléchir ne par exemple mun nañu yokk saison bi tuuti. adapté ko ak Modou Lo pour ñu mun ko bëre ndax man yàkkamti naa combat bi jeex ba ma jublu ci leneen ndax aussi yàgg na euh, am na lu bare loo xam def nañ ko ci mënuñoo avancer mënuñoo reculer xamuñu fu ñuy toogee donc daal li ci des nag dañ koy bàyyi loxo suñu borom parce que ñun aussi duñu yàlla duñu yonent dañuy sabablu rek. ban garantie joxe ni effectivement pare na pour tëgg combat bi Modou ndoo waree côté finance wax parce que ñu bëri nee nañ lu parewul. waaw léegi euh, xam nga loolu dafa yomb tontu. ku parewul yaakaar naa du joxe avant CNG. régularisé deselu ma benn mbër dara. maa ngi koy wax sànq am na mbër boo xam ne ci ñaari camp yi euh, jeudi mercredi xaw ma mardi lañ ma leb Nicolas business ay millions yu bare ñu jox leen ko ku parewul tëgg yaakaar naa doo leble. man bu ma xalaatoon ne dañuy bëri le treize kon du ma joxe xaalis boobu de yaakaar naa te mbër yaa ngi may dégg amul kenn ku ñeme génn weddi ko amul ndax reçu yaa ngi fii ñu téye kenn du ko weddi donc ñun pare nañu ama maa ngi koy ñaanal yàlla mu egg ci jàmm ji ak ak combat bi ak jàmm ndax ama man yaakaar naa ni ma jegenteeg moom ci combat bi sax jegante wu ak Modou Lo la may jokkoo ak ñoom jokkoowu ma ko ak Modou Lo man Pikine ñooñu di wax xale yi yëpp di wax fii dañuy coow rek mais man pikin laa màggee laa jël baabooy xam na ci dara man Pikine laa màggee laa defee ay carrière yu bare Pikine laa ko defee boobu boo yii di coow fii yëpp kenn judduwu ci sama maam moom moomoon tool bi nga xamante ne moo taxaloog église bi ñoom waa Pikine xam nañu li may wax Cité Labat xam nañu li may wax waaw dama yàgg foofu donc ñoom kenn gënuma cee dëkk Pikine voilà. parce que man li ma la bëgg laaj mooy ligg ni ko Nicolaï saa yu tëggee kombaam Modou bu ci benn jafe-jafe amee ñu ne Modou moog Luc ñooy complot wala Modou moog Luc ñoom ñooy teg seen benn deal est-ce que mu Luc seq bi mu seq ak Modou. dañoo am xaritoo gu sori bu tax boo xam ne bu problème amee rek surtout problème bi am nii ñu bare bare bari jàpp ni yéen ñaar yéen a teg seen benn dil jëmale ko kaw kaw ki nga xam ne moom moo di Ama Baldé bi ci des mooy Demba Ka biñ ci tudd ne da ko jaay komba bi loolu tamit sénégalais yi bëgg nañ cee am lu leer parce que am na ku ñu dégg ci réseaux sociaux mu ne combat bi yow da nga ko tayle léegi da ko jaay parce que lan la problème mu ay kayit la donte nee nga loolu leeral nga ko mais tamit dañoo tudd turu kilifa muy Demba Ka te ñu gisoon la nga def ci place am signature contrat. waaw euh, da ma njëkk laaj ci Modou Lo. waaw la dara du liggéey bi ndax ñaanuma la xaalis lebuma la. lépp lu may wax ak yow rek ci wàllu lu ñu seexale ci liggéey donc mënuñu toll ci nii ma lay woo jëluloo jërëjëf yàlla na yàlla taxaw gis nga date bi ma ko yónnee lii gis nga ko ah mm-hmm. voilà jeudi la gaañu gaay parce que dama koy woo ça fait deux semaines mënu ko jot mm-hmm. kon xam nga lii moo lay wan ne man aw ma proximité bi gars yi yaakaar ak Modou Lo lii firnde na ko message bi mënu ma ko inventé xam nga mm-hmm. donc tey na nit ñi arrêté li ñuy def man dama yàgg ci làmb ji def ci lu bare xam ci lu bare jaar ci lu bare xam li may def lan la xam nu ñuy monte lam musoo dégg ma amel nit mbër xaalis amul lépp lu may gi ban komba bu dul jinne tëgg nañ ko fii musuma amel kenn xaalis coow li nag mën na bare nii dembaka du duma ko tudd parce que dembaka kilifa la boo xamante ne nekk doomu réew mi di liggéey ci réew mi yor ay responsabilité ci réew mi donc tey Demba Ka du ko tudd man EDK KPI laay wax ak Jolof ci kan loolu moom importance man toll naa foo xam ne maa mag ay jaay làmb man yaa ngi dégg Demba su ma nawle la woo ma ñu ànd liggéey mu doon sponsor si làmb ji ñu décider yëkkati làmb ji may ko Sénégalais yi en direct noonu rek la mbir mi demee demeewul neneen. maa xaaral ko mu euh, laaj. di est-ce que doo toog ba ci yàgg ngay jékki saay di wét naan bu démb doon tey duma ci dugg parce que gàllankoor yeeg jafe-jafe ak yàlla tere bu demee ni est-ce que pertement bi du nekk ci yow. xam nga Modou ant question bi am na solo torop mais man bu Sénégalais gagné rek ma bëgg ndax man li may def ni yëpp Sénégal donc moo tax ma di ko def yàlla xam na ko mënoon naa jël. investissement yi ne xale yi nañ ko def feneen nañ ko dugal fii ma dugal ko ci làmb ñu ngi nii ñun ñëpp ñu ngi fi toog ba heure bi di liggéey ku ne di wax ñu bokk ndey bokk bàyyi ñun ñëpp fu ñu gisante kafre muy Babacar muy yow muy Lamine kon lii dafa neex ay bépp saay-saay bu dugg ci biir nar koo yàq wallaay azim doo ko fekkee faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba mu ne boy ak li nga xamante ni moo di sa salle de bain ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo ko defee sa façadu kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël benn yoon ndox ba noppi ay qualité yu baax la ñuy jaay te seen karo du yàqu waaw waaw kon nag yow mi bëgg ay karo yu baax dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Xaadimu Rasuul ña nga parcelle ca Parcelles boru marché police ba le numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rasuul nag dañuy ubbi du lundi au dimanche ah dama ne kon nag boo bëggee ay yu dawal gaaw seeti waa établissement Khadi Rasuul Nyanganek nga nekk foofu ca Parcelles Assainies boru marché police établissement Khadi le choix de